Kermassar Info toujours amoureux du football suñ Ahmed Adara tay ñëw na sétal ci li nga xamné moy division régionale 7 septième journée dox ci diggante Espérance sportive de Kermassar ak li nga xamné moy Sirène di euh ñu gis le maire du bett kenn dañuy xamné ku bëgg football la alors monsieur le maire tay ñu gis la en tant que maire de la ville nga ñëw accompagner li nga xamné moy équipe yi nga xamné football tay tay nan nga dundé bis bi. wa bon bis bi mom xam nga day naturel ci ñin parce que ñin mom ay éléments au milieu bi lañ ñin nous sommes du mouvement associatif. bon yàlla dogal na football nañ football nañ nawetaan nekk nañ fi dirigeant stade bi nii maanaam dañ fi yàgg daal bu ñu fi ñëwee du gan kon nag bu ñuy futbal fii division régional yàlla dogal waa Kër Massar war a daje ak waa Géejawaay bon war nañ ñëw te lii nag dafa war di nekk li ma doon wax chaque jour dirigeant yi ma ne leen mbëri nekkul ay ñoom ñi nekk ci kaw ñoom Yékini Balla Gaye ak ñoom Modou Lo dee leen bàyyi itam xel ñiñ tuddee léger yi ñooñu ñooy yëg bu ëllëgee. football bi aussi nañuy bàyyi xel division régionale Ligue bi. la petite catégorie surtout la petite catégorie voyez football n'est correct Ligue 1 ou l'équipe nationale A point malheureusement nous ici en Afrique bon sommes intéressés équipe nationale A ñu intéressé bon alors que nous nous, nous ak 5 ans nous pousse nous, nous, donc si nous ñi nous benn luy équipe sélection <laughs> sélection ah, merci beaucoup